alhamdulilah alkarim silmilan ala stighaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu qad saahani li watani bihi nafa ma anfani jasbul quluub li allaamil ghuyuub alhamdu lil haqqil mubiin man kawnu li yabiin bismillahi rahmaani rahiim okki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dellu siwaat ci seen yóbbalu bi ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdul Ahad Diop sëriñ daara mbokki tey la dibeer dibeer mooy dimanche tombeeg fukki fan ak juróom ci weeru tam xarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan ak ñeent ci weeru tubaab ci mois de août atum deux mille vingt de mbokk yi tey di dimanche muy dibéer fukki fan ak juróom lim bi mu dajeel fattul bis bi rafet na kon tey rafet na mbokk yi dibéer ji liñ ciy terate rek wattandiku mooy ku ci tàggoo tukki mbaa ci watu suba jam jàmm mbokk yi mi ngi war a dajeeg altine war a tombeeg fukki fan ak juróom benn ci weeru tam xarit suba de altine mbokk yi fukki fan ak juróom benn daa bokk ci lim yi fatt kon suba bis bi rafet na di altine waaye daa tombeek lim bu fatt kon suba lépp loo xam ni des na ko wattandiku ci bis bu fatt rek des na ko ci wattandiku muy suba ci fukki fan yeeg juróom benn daa fatt tere gi nag du tere ak araamal waaye tere ak lay doon yéen ci wattandiku gannaaw loolu mbokk yi ñu ñëw ci seen yóbbalu bis bi yóbbal bi liñ ci waxtaane tey mbokk yi mooy li baax ci kuy misère wala kuy xalaat xalaat yu bari koo xam ne fu mu toll rek day xalaat rek xel mi du fi nekk am lu ne ci xelam mu ni ko xalaat guddeeg bëccëg mënu koo bàyyi loola mbokki mu mel ni baaxul xalaat yu bari baaxul mën na laa indil ay jafe-jafe xalaat yu bari baaxul muy di misère dara am lu la naqari toujours rek du jóg ci sam xel ba bëccëg yaa ngi koy xalaat ba daanaka doo mën a nelaw nelaw yu doy wala doo mën a lekk lekk gu doy doo mën a naan naan gu doy ngir di xalaat benn mbir di ko misère rek nga bëgg a tàqaliko ak loolee ngay xalaat kooka dañ lay wax ne la bindal ñett li ilaafi xuraysin li ilaafi xuraysin ñett bu góor bu jigéen bu ngunu ngaana waaye ñett yëpp da koy juutal la war mujj mooy njëkk ñett yépp da koy juutal bu góor bu jigéen bu ngunu ngaan def ci lempiir piir jox ko kay misère mu naan ko mu di ko naan diirub ñetti fan incha allahu rabbi suñu borom dana ko fàtteloo loolee nga xam ni moom lay misère di ko xalaat fu mu toll incha allah ci kattu yàlla ak mbaaxam bokki loolu lañ leen andi leen ci yóbbal bi tey ñu teg sunu baaraam foofu ba subaa jàmm di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. والمرسلين الأصياء إمامنا المعصمين الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني